gan gi Cheikhna Keita moo jiite association bi ëmb policier yu Sénégal te retraité euh, gardien euh, brigadier chef des gardiens de la paix en retraite également ñu ngi lay nuyu sëñ bi Keita ñoo ngi lay delloo nuyu soxna si. am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM alors ñu tàmbalee waxtaan wi ak euh, fàttaliku gi ngeen euh, bëgg a def euh, ci fukki fan ak juróom-benn weeru février atum 1994 di bës bi nga xam ni faat nañu juróom-benn ci ay policiers ci allée du centenaire ci ndakaaru tey muy boulevard général de ñaar fukki at ak juróom-ñeent gannaaw xew-xew bu tiis boobu ana luy seen càkkutéef ci kilifa yi. waaw jërëjëf ci invitation bi sant bu baax a baax. di wax ni bés buy jege bés boobu ñun ak mouvement national des policiers du Sénégal dañuy fas yéene def conférence de presse di fàttaliku ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci bu méttee méttee métti te li ma fàtte wax ci tubaab moo di lépp loo gis rek am na lu ko xamb mm. lu ko xamb moo di ñoom dañ leen désigné woon ñu jógee élément GMI yi pour aar doomu aadama yi nga xam dañoo war a def meeting euh, de Abdoulaye a def meeting euh, euh, aller du centenaire de 16 février 1994 ñu dem nag pour aar doomu aadama yi ordre bi nag troublé wul kon ñoom dañuy dem pour maintenir l'ordre pour aar ña fan dañuy ñëw ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm waaye nag dafa am lu jiitu loolu Abdoulaye Wade avant meeting bi dafa waxoon citoyen Sénégal yi ne bu leen am dara lu ngeen ragal ci alkaati bu leen leen ragal ay doomu adama lañ comme yéen song bu neen songee song leen wuteen ay jat wuteen ay bant wuteen ay ceen dóoranteel ak ñoom wax jooju mooy li ëmb lépp ñoom le 16 février 94 alkaati yi bu fekkee ne ordre bi trouvé wu moom bu ñu demee dañuy def rek placer quelques éléments ci xurukaat yi ñoom ñi ci def ñu dugg ci biir oto yi di xaar di xam ni dañuy aar doomu yi ay assaillants laa di tuddee xam na ñan la nag man dama am war ma ci ñu fa di hmm. jóge moo tax du ma tudd seen tur ay assaillants laa leen di wooyee eh, ñëw fekk leen seen oto yi ñu toogoon ñu jël ay mën a taal ko ci buntu oto yi ñooñu tiit bu ñuy tëb booy tëb boo rek ñu jàpp la juróom benn hmm. juróom benn yooyu ah, ba gaañ ci capitaine bi ñu bënn bët bi dagg wat loxo bi beneen lieutenant bi ñu dagg loxo bi waaw muy lu méttee méttee métti ñaar fukki at ak juróom-ñeent ci ren amul dara benn juste rendre leen tax jàppoon nañ leen bàyyi leen ñu dem eh, indemnisation bi benn million la jox ba famille bu ne boobu léegi jeex na fàttali nañ leen amul dara dara lu def ñoom waaw hmm. léegi tey lu ngeen di sàkku yéen gannaaw euh, xew-xew boobu am na ñaar fukki ak juróom-ñeent tey waaye ba léegi at mu jot ngeen wax ci ren ngeen nar a def ndaje taskatu xibaar yi ni nga ko waxee ana lu ngeen di xaar tey ci kilifay réew mi. waaw man nag euh, président de la République interpellé muy chef de l'état bi Macky Sall moom mi nga xam ne mooy responsable mooy kilifa force d'armée ak force de sécurité ak défense yëpp kooku la ñuy waxal tey at yi passé dañuy wax ministère de l'intérieur mel ni ñu dégguñu Ah, fu la yaa ngi dégg ñu fay tuddee ñoo xam ne ay nit ñu baax la woon bu yàggul rek Iba Der Thiam tuddee nañ ñooñu nag demoon di xare pour aar doomu aadama yi loolu fekk leen fa ñu rendi leen ci anen ñaaw bu rafet bu rafetul te ñu ko def xam nañ ko waxtee ñu ñi ngi ñaat ñaan Macky Sall mu jox ndigal ah, ki nga xam ne moo jiite ministère intérieur di Antoine Abdoulaye Félix Diome ñu jël ay commissariat wala ay post police tuddee leen ko pour que dans la prospérité ñu bañ leen a fàtte loolu yoon la te dañ ko war teg vraiment te dañ koy sakku di ko sakku di ko sakku bu woo bu sax mais boulevard boobu ñu ne reyee ñu dindi turu De boobu def boulevard des martyrs des six des six policiers martyrs qui ont été égorgés juróom-benn nit ñooñu tey may lim seen tur mu di euh, ki ci jiitu di Abou Anne El Hadj Amady Sogui Seck Moustapha Dieng Ibrahima Faye Daouda Dour Babacar Fall ma ci gën a marqué nag mooy Moustapha Dieng sama commandant du corps urbain la woon nit ku baax ca caaro yi vraiment ñu affecté ko loolu fekk ko fa tey njaboot yi dañ leen a bàyyi toppatoowul leen ministre des forces armées eh, joxe na exemple bu réer korab maa koy déglu RTS mu ni ñi nga xam ne ay invalide ak ñi nga xam ne ay militaires yi xam ne dañuy dem ci xare xaay gaañu fa dañ leen dukkal ba pare dellu dimbali seen i njaboot tabax ay kër jox leen waa alkaat yi lu ñu ciy def policiers yi pourquoi duñ ko def ndax la ñu bëgg a fàtt ñun de suñu war go moo di ñun du ñu leen fàtte ba ilaa yow mi diini mouvement bi du leen fàtte dinañ wax njaboot gi ñu ngi leen dellu di leen di ñaanal seen ñooñu nga xam ñoo bokkoon liggéey bi ñu jël leen ci façon bu nga xam ne bu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw Ablaye def na fukki at ak ñaar mais musu leen xalaat te pourtant lépp ci moom la sooxee musul xalaat ñooñu te def ci boppam musu leen xalaat te lépp moo ko sooxe te tey lii am ba am ñaar fukki at ak juróom-ñeent tey ñu kenn faale wu leen toppatoo wu leen kenn mu doon xalaat. mais loolu. yoon yoon deful woon liggéeyam ca booba jamono. doxul deful dara dama ni dañ leen xam na ñan la dama ni damaa jox cër te neenu bokk cër boobu moo tax du ma tudd kenn. Hmm. dama ni ay bandi yu ñëw fekk leen foofu rey leen te dañu xam ni ah defuñu justice Sénégal de joxuñu leen justice mais yàlla ngi leen di xaar yàlla nee na ñaar ñi du ma ko baale man yàlla buur ñu may bokkaale ak ku nit. yàlla rek mu am sañ-sañu rey ña rey nag xam nañ xam seen bopp ne xam nañ ñoom ña ko def ak ñeneen ko sant ñëpp dañu xam ni seen kër safara du àjjana wala leer nañ ne. Hmm. ñu doyloon na yàlla ci lépp moom loolu la. Hmm. waaw alors euh, ndax yow bi nga am itam ci mbiram Fulbert euh, Sambou ak Didier Badji ndax ñaari takk der la woon kenn ki gis nañu ko ci waaxi Ndakaaru waaye ka ca des kenn xamul fu mu ne ay mbokk ñooñee jaaxle ndax yéen ay takk der comme ñoom doonte retraité ngeen yëg-yëg bi ngay am ci policier yi ñu faatoon 94 moom nga am ci mbiram ñaari euh, takk der waaw lu bañ moom laa am lu ko wees sax laa ci am parce que kuy sol boobu tenue muy douanier muy gendarme muy eaux et forêt muy garde du corps muy lu mu doon rek ak foo ngay sol ngay def sa liggéey kooku boo jëlee nga génne àddina génne bu métti noonu il faut ñu lay xalaat ñun koroog bañ ko yëgee dañ koo métti lu mu métti ñu lool métti ñu lool te ñu wax nañ am nañu fii boo xam ne ay gendarme yu xarañ ay alkaaj yu xarañ yoo xam ne mën nañu mën ay enquete yoo xam ne mën nañu leen retrouver ñu xam lan lan lan la ñu génne àddina parce que dañoo wax ne dañoo suux dañ doon dem nappi ah, xam naa ñu ratax wala ñu def leen wala ñu dem dugg euh, bàgg bi ñëw yóbbu leen loolu dese nañoo leer loolu lan la ñu wax mm. mais état jël engagement ne dana def ay enquête pour ñu génn ko ci loolu nag jàpp na ne wóor na ne état bi nañ ci def enquête ta yàgg yàgg dana feeñ yàgg yàgg dañ xam aussi ni ñu génnee ci àddina loolu moom lu am solo loo xam ne daal ñun vraiment ñu koy métilu lu di sakku ci état bi ñu def lu tous les moins pour que vraiment seen famille seen njaboot yi seen i soxna vraiment mën a tëdd nekk ci jàmm parce que ku xam sa sa tegañaaw nu mu génnee àddina waaw tey noonu vraiment da da nga da nga am da nga da nga apaiser loolu daal la ñuy mm. ndax ni fii doxee jàpp nga ne enquête bi dana jaar yoon te itam dana leeral mbir yi parce que boobu ba tey dégguñu ci lu bari seeni i mbokk sax jàpp ne yëf yi dafa yéex ba ba yegg ci lool waaw enquête bi dana jaar yoon man je pense que enquête bi dana jaar yoon daal loolu laa ko jàppee eh, hmm. seen i mbokk nag waruñu ne ne comme ñoo ko waxee ci français te kaaral nañuy laaj ci toujours fu ñu toll nañuy jànnaxal naan ko nag defal yëngatul yëngatul yëngatul def mais nag dañuy yëngatul nañ koy wax parce que bu nee tekk rek ñoom it ñu ni tekk tekk jooju nag moo du war parce que daal suñu ñooñu ay homme de tenue ay homme de renseignement la hmm. dañ doon dimbali état bi dimbali chef d'état ay renseignement ni dëkk bi dox ak ni muy demee yëpp kon tey daal vraiment ñooñu dañuy def tout tout tout pour ñu xam nan nañu génne àddina daal loolu lu ñu soxla lool lool lool soxla nañ ko torop torop ak corps bu ñu mënta appartenir rek ay homme ay c'est des corps habillés foofu bokk ñun ñoo bokk ñuy liggéey lépp ñoo ko bokk ñoom mm. ay ay militaire ay gendarme lañu kenn ci militaire la ñun suñu sommes des policiers kon lu leen daal daal nañu lu daal lu metti seen njaboot metti nañu kon ñun suñu sakkutaay daal moo la ñuy fexe ba xam nan nañu génne àddina te xam naa ne xarañte gi nekk ci police enquêteurs yi ak gendarme yi. Hmm. mën nañu fexe bu ñu mënee les enquêtes sérieusement dañ fexe ba xam ñu ñu génn àddina. Hmm. alors ñu bëri jàpp ne tey dafa jot euh, police ak gendarme rek yeneen corps yi am syndicat bu ko defee yenn jafe yi ngeen di am euh, ñu mun ko porter euh, muy ay revendication police moom yàgg nañ laa dégg nga di ko wax ndax jàpp nga ni tam yëpp am syndicat tey lu lu jot la ci Sénégal. waa dafa am ay corps militaire c'est-à-dire corps militaire moom amul war amul droit de syndicat. parce que moom corps militaire lu muy armée di gendarmerie c'est deux corps militaires mais police moom ak douane ak yeneen corps yi forcément dañu war am syndicat te police amoon na syndicat 1960 indépendance police dafa amoon syndicat parce que statut bi fi colon yi newoon la ñu institut boobu daf lu joxoon dañu amoon syndicat mais yàlla dogal na diggante Senghor ak Mamadou Dia dem ba am jaxasoo am ci ba jaxasoo am ci ba nga xam ne Senghor dafa daajoon député yi ñu dem assemblée wote motion de censure bu état ñu génn moom daa dàq Mamadou Dia génn dàq mu gouvernement war mm. jooju Ndiaye ki jegoon Mamadou Dia lool wax joxe instruction alkaati yi kilifa alkaati yi ne leen da ngay yebal alkaati yi foofu ba benn député mu dem assemblée pour def loolu ñu def lool bañ wote bañ wote bañ a wote motion de censure bi Lamine Gueye fa mu foofu la woowee député yu wootee motion de censure bi Senghor demee ba am dessus ba nga xam ne gagné na parti bi jàpp nañ Mamadou Dia alors mu ne nag ñii daal euh, ko boo ko defee sa nguur lu yàgg parce que benn état mënul gouverner sans police parce que ñoo renseignement yi. Hmm. mu deltu ginnaaw wut mu wut yeneen naa wut yeneen moyen 66. mu dem créé indiwaat beneen statut la loi 66 dindi suñu syndicat ci boobu ba léegi nag alkaati yi gis ngeen li xew Sénégal dañuy tooñ di ñu saaga di ñu wax lu ne duñu lu xew ñu provoqué ñu mais amuñu droit wax parce que amuñu syndicat loolu nag dafa war a dakk dafa war a doñ monde bi ba mu daj waxuma ba mu daj ñun rek ñooy police bu amul syndicat te partout corps civil bu ne dafa am syndicat loolu nag c'est c'est injuste c'est arbitraire parce que dañuy tooñ dina di ñu wax lu ne amuñu droit riposte dañoo am jaboot comme ñëpp te war nañu wax fu dëgg tey yow euh, journaliste ku mu doon bu leen faagaagalee ñu wax. Hmm. médecin yi même chose ku ñu nga wax te police amul droit kenn amul droit loolu dafa war a dakk état daal ñu ciy interpellé chef d' état bi que vraiment boobu ba léegi ñu koy ñaan ñu jox lu suñu syndicat bi boobu boobaa ñun dana mën a revendiquer suñu droit du tey it bu ñu amee syndicat dañuy aar doomu sécurité personnelle et leur bien c' est à dire dañuy woon ñun suñu ñun li ñu euh, li ñu suñu wareef ci ci dëkk bi dañ ko def woon aussi état bi ne ñun. vraiment bu ñu toogee ñu téye suñu loxo banque suñu loxo dana am lu métti loo xam ne dañ koy ci dëkk bi waaw. Mhm. alors ñu euh, wax ci accident yi nekkoon nga itam policier ci circulation bi euh, tey état jël na ay mesures yu bare bare rawatina ak ginnaaw accident Sikilo ak Sakal yi wante ba tey accident yi di wéy lan nga jàpp ni daal mooy euh, problème bi dëgg-dëgg ci Sénégal ak accident yi. soxna si bu kenn sonn ci dara ñoom xam na lan moo waral accident yi li ko waral yëpp xam nañ ko parce que li wóor moo di. Euh, boo dëkk boo dem euh, ñi nga xam dañuy def ay accident ma jox le benn exemple tout récemment ñi ngi wax doomu xalifa sàll bi dañ koy jàppoon mu def accident mbëkk benn moto te dañ ko fekk mu naan sàngara mais dañ ko relaxé loolu mooy lan ak yeneen plus que ça mi ngi xew fii yooyu mooy lan yooyu moo fa doon beneen bi mooy parc automobile bi moom moo baaxatul lañ ko war a dindi. Mm. cette yi boo gisee ñu naan ay wargaay de am fii parce que nit ñi ñoo ko soxla seen bopp. ñooy dem di talifu di leen jël seen kër di leen yóbbu parce que moom cette place bu am juróom-benn fukki at ba day daw mu nekk xottu leen Ndiaga Ndiaye juróom 45 euh, ans ñeent fukki at ak juróom car rapide 53 pour cent juróom fukki ak juróom birle yi genn wàll gi yëpp ñu ngi si juróom-ñaar fukki at ak juróom. waaw tey euh, bus yi ñëw fii amul benn bu nekk bus ku fi ñëw rek am nga vingt cinquante trente cinquante âge mais kooku yëgu ju Sénégal yi respecté wu leen état bi toog fii boo waxee tey génn ci bu waxee nag génn ci état day un état fort da ngay jël décision car rapide ba ña jaay ba euh, Ablaye Wade indee fi tata yi mënoon na fi jóge mais li mu di raay moo tax ba dégg car rapide am pi bu jógoon leen nii lay demee nii lay demee ku bëgg jël ku bëggul ñu jël sa car rapide boobaa dina lañ doo doo euh, bakkanu doomu aadama moo ëpp solo yenn yi transporteurs yi moomu ñunu moomu ñunu ba nga xam lu leen neex la ñuy doxal ci dëkk bi déedéet vingt euh, contravention de police vingt quatre biir la woon dañuy def pression ci Abdou Diouf mu wàcc ko ba six mille jëm suuf mais loolu mooy lan ngay def lu la neex tey jii boo mbëkkee de ñu ne involontaire bu dee ñu ne involontaire xamuñu nu mu dee est ba ngay ba mbëkk destruit na ko est-ce que mu ngi koy mbëkk mu def ko naanul sàngara yëpp duñ ko vérifier Sénégal beneen bi moo di 89 dafa am lu ñu metti te dégg naa ci waxi nit ñi ñu ne Abdoulaye Abdou Diouf lool rek ko gën a metti ci li mu def ba fu nekkee vingt deux ans mu di chemin de fer bi mu bi dee en quatre vingt te dundalu waatu ko mais loolu moo gën a bëri accident yi. Hmm. terre bi baax na lool mais dafa am fu mu yam ak ñu muy jël ak ñu muy bàyyi mais chemin de fer ñun ñoo njëkk am Afrique chemin de fer dañ ko war a joxe bi Lat Joor di toog raay bi du fi nekk bu tubaab bi def ko fi mais korok benn africain benn africain africain amu ko tey li tax ñun ñu déplacé wu ci Sénégal ak saxaar gi dem un peu partout boo jógee Ndakaaru dem Louga soo neexee nga dem Ndar dem Tambacounda dem Touba dem Njaarim jëm fu ne nga dem fa tey ñu téye loolu mais milliards def ci terre bi bu ñu ko defoon fee bu mënoon nañ assurer la sécurité des personnes loolu nag euh, président promettre na ci visitam bi mu def euh, Thiès ne dana décalaat dana décalaat chemin de fer mais waxuñu ay Dakar Bamako de waxuñu loolu kooku dëkk dëkk la dañu wax ci biir dëkk bi chemin de fer bi ñu dundaat ñu rallonge bi ñu def ko ba Casamance ñun loolu lañ soxla pour diminuer vraiment ça te ñu jël le mesures idoines beneen bi moo di le ministre des transports euh, moom nan la mën a parce que dañu toog ne euh, tracasserie policière nangam nangam di wax n'importe quoi des transporteurs di ko wax ñu joxe jël mu wax euh, gorom mu jël décret interdire certaines positions des gendarmes tey jam ñaajo amul kenn c'est l'insécurité foo mun ti dem c'est l'insécurité ñu ne bu leen contrôler te bus bu leen contrôler te camion li ngeen bàyyi ñu def lu leen neex gars yi di surnom def di n'importe quoi mais loolu moo indi fii loolu mooy accident cyclo bi lu ko indi hmm. y avait soixante quatorze soixante quinze personnes à bord c'est les renseignements que j'ai reçus deux tonnes cinq cents de marchandises yëpp loolu yëpp ci loolu lan la nañu bàyyi war la fi nekkoon contrôle yi continuer ñu tegaat alkaati ak gendarme seen point lool mooy yoon pour vraiment ñu diminuer diminuer ñu insécurité bi am ci ak accident yi wàññi ko hmm. waaw jërëjëf euh, Cheikhna Keita ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM waaw jërëjëf man aussi maa ngi leen di maa ngi leen leen di sant bu baax. Mhm. parce que wóolute gi eh, fu ma ko jàpp rek weesu na ko parce man saa yu ma ko soxlaa. Mhm. di dellu di jaale nag nga xam ñi ngi waajal le 16 février 94. bi mhm. fi xewoon eh, di waajal 16 février bii 2023 di fàttali ko sunu martyr yooyu nga xam dañoo génn àddina di ñaanal eh, ña nga àjjana parce di wax nag seen njaboot ñu ngi seen ginnaaw di leen dimbali te dana def le tout ba ñu dañ leen di fàttalu ko fu ñu toll. di def le tout di wax mais par exemple nañ leen fàttalu ko ba indemniser leen ñu joxe indemnisation yëpp. Mm. wax wax ministère de l' intérieur def tout pour tuddee leen ay commissaire ak poste police. Mm. loolu daal vraiment posture boobu la bëgg te incha yàlla na ci yàlla dimbali taxawaluñu ci bu baax a baax. merci beaucoup a ñu lay gërëm gërëm bu baax a baax te